bismillaahi rahmaani rahiim barki borom tuuba alil faadilu mislun falaa taqiidu imaaran bi jawaadin fadaara iidu alil faadilu mislun falaa taqiidu imaaran bi jawaadin fadaara iidu nangeen seere ni feeg jànguleen siin baa sëriñ Faadilu laay def borom Tuuba sëriñ Faadilu laajal lu la neex laaj ku Seex Bàmba di baayam lu ko neex laaj sëriñ Faadilu yaa jël ku la neex daaj ku Seex Bàmba di baayam dafay haay gaañ bu lislaam defoon uk dangay dóoru xaaj ndembàkkee ki mutuubi fi daa falil faadili fadlan falaa yubaha laqad ajja wala ba wadaarataha yow ziyaara nga makka ziyaara tuuba su yónneen ba ni ñokket nga su boobaa ba ngay wàcc ña fa teewoon te jébbal la kurus yañ yoroon di saw jaam di labbayka tana maraban wa zanla ndewaa makkata daanan la nuy di layla adiyaatuka mimman laha zaaru fatuubaa lahumu bahdama jaaru fadaa il yi sëriñ fàddiluy ramoo jaam amul jaam ko làmboo ci yoonu lislaam caxar baax ya fi feex bamba daa xare baax la feex faadilu mbàkkey xaraate ay baax sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam muxtaar fu yoo ka faddat li man laanu yaa baxru ulumin lima daanu xanaa yaa di wurus mbaate géeju yaa ku déggoon li xam ni mbir yi lay xóot woyof toyyu te ànd di baare few diir sa ndey toggu ta baay fat mënee fulaafiis lewet doom te ànd di doomi jàmbaar nosal ruux yi te wommat ndeyaa di jàmbaar sa maam ya sa riif lañ gënee fu lay maam jant ta nday weer marax ba yaay daam ca meenu mooda moomoo dey nu ngay meet seleng lul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nampal mënee fu laa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ ajaayib ya nga bokk ak sëriñ tuuba balaa feeñ dañu fee jug ba tàbbi tuuba na buur yokku sunu fan ba buñ jugee raam tewoom at ñi fi daaxeñ tu lislaam na buur yokku sunu ba buñ jugee te wommat ña fi daa xeeñtu yoonu lislaam allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sallim